juróom-ñeenti fan ci weeru koor bis na tey la Mu'tasim Billahi jëloon xilaafa gi loolu mi ngi nekkoon ci atum 218 moom Mu'tasim Billah ñu xamoon ko lool ci ak njàmbaarteem ni ki noonu xamoon nañ ko lool ci jàmmarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy fipp yi nekkoon ci biti golf bi moom Mu'tasim nag mu amoon ci taxawaay bu ama am solo kon bis na tey la jëloon xilaafa gi juróom-ñeenti fan ci weeru koor atum 218 alxames juróom-ñeenti fan ci weeru koor atum 222 bis na tey amoon na xare metti bu amoon ci diggante jullit ñi ak euh, réewum Bas nga xam ne Pamik moom moo fa euh, nekkoon ginnaaw ba fa jullit ñu duggee nag moom Pamik dafa daw ànd ak euh, juróom-benn ci ay ànd àndandooram lu ko jiitu moom pabik nag jàppoon na ci jullit ñi tëj leen foofa lu toll ci juróom-ñaari junni ak juróom-benn téeméeri jullit yoo xam ne ma nga leen tëjoon foofa ginnaaw ba mu dugg fa daal di libéré ay jullit ñooña juróom-ñeenti fan ci weeru koor atum 303 bis na tey la pont Dijla ca Bagdad daal di daggoon pont boobu nag ginnaaw bi mu daggee labal mbooloo mu bari ci ñi fa daan jaar juróom-ñeenti fan ci weeru koor bis na tey la al nekkoon xalifa jullit ñi génnoon ngir xeex ak ñi nga xam ne ñoom ñooy xaraami tuuna yi ñoom xaraami tuuna yi nag ñi ngi soqi ko ci euh, xarmat turam di euh, Hamdan ibnu euh, Ash'at nekkoon koo xam ne moom moo jiitu woon kuréel bii di xaraami tuuna yi mu nekkoon kuréel boo xam ne dafa sosu di woote ak njullit waaye ci biir diine lislaam ñu indi ci njàngale moo xam ne kenn xamu ko daanaka ay caaxaan nag ñoom euh, xaraami Touré yi boobee nag la Muktafi génn juróom-ñeenti fan ci weeru koor ngir euh, jàmmarloog ñoom ñoom nag daanaka seen kuréel boobu kuréel bu amoon doole ndax yilifoon nañu ay réew jullit yu bari ginnaaw boo xam ne Muktafi nag génn na wutali Iraq bisub talaata juróom-ñeenti fan ci weeru koor atum 292 moom Muktafi nag bi muy dem ànd nag mbooloo ay soldaar bi mu demee ba àgg fu ñu wax raq foofee la sax daal di fay wuutal généralu armée bii di Qasim ibnu Ubaydallah Souleymane ci armée bu rëy ak ngànnaay ngir ñu dem xeex jeeg euh, euh, xaraami tuuna yi ci fàttali ñoom euh, xaraami tuuna yi ay jullit la ñu woon waaye di woote woote yi caaxaan ni ki noonu dugal nañu ci njàngale yoo xam ne du lu lislaam xam ki ko sosoon woote ba am mbooloo mooy Hamdan ibnu Ash'at ñu ko daan dàkkantalee xarmat ngir ngir ni mu tuute woon ndax dañuy wax ne nit ku gàtt la woon ba daanaka sax ak tung na la woon sa ginnaaw bi ñu sosee seen kuréel boobu di woote yi ay jullit lañu ña nga basé woon fa ne moom mooy Kuufa nañu ay réewi jullit yu bari euh, ci la ñu dem fi nga xam ne moom mooy Bahreïn nangu ko ñoom xaramituuna yi ci atum euh, a yi daal di fondé nag seen euh, état mu bi ñoom xaramituuna yi ci atum 295 jàpp 320 ci la ñu jullit ñi nga xam ne dañ daan aji benn ñuy aji wa ilaa ñu ñuy ñibbisi ci seenu àcc niki noonu eh, ci atum 319 eh, ci la ñu dugg màkk ñoom xaraami tuune yi ray fa ay ujaaj mabbu teen bi ñuy wax eh, zam-zam nga xam ne maam Ismaïl moom moo ko bënnoon mu nekk lu yàgg teenu zam-zam ñu dugg ca jàkka ja muy masjidul xaram ña nekkoon di wër kaaba ci gën a bëri ñu rey leen dal di ñori rido yi kaaba ga ñoom xaraami tuune yi màbb fa ay kër daal di dem ca kaaba ga génne xajaru aswat muy doju ñu loowu ujaaj yi foo koy sàcc yóbbu ko fa nga xam ne moom mooy axsa maanaam génne ko màkk yóbbu ko beneen réew xajaru aswad boobu sax axsa la nekk diirub ñaar fukki at ndax ñu ngi ko fa jële ci atum 319 euh, ba ci atum 339 euh, diggante boobu nag jullit ñi nekkoon ci ak njaaxle ni ki noonu euh, ci wàllu aj ak yi ci aju ndax ñoom xaraabitu ne ci jamono bii dañu amoon doole yilif ay réewu jullit yu bari waaye nag ci seen biirum njàngale daanaka li ñu indi kenn xamu ko bokkoon na ci seenum njàngale wax nañu benn bis ci daan bi nag am na yeneen kuréel yoo xam ne dañoo mel ni xaraami tuude yuy judduwaat mu toll ci fukk yooyu ñu leen di woowee al madahibul batiniya maanaam ay kuréel yuy woote yoo xam ne ci ak caaxaan la ñuy woote ak cig neen altine juróom ñeenti fan ci weeru koor atum 297 bi sa tey la Yuusuf ibnu Yanquba faatu nekkoon attakat bu mag juróom-ñeent fan ci weeru koor atum 93 ci kaddaay gi yemook 18 juin 712 ci la général lu jullit ñi di Moussa ibnu Nuzayru dellu Espagne ngir mottali ubbite ga muy dëkk yi nga xam ne ne jullit ni jotuñ ko woon a ubbi dugal fa lislaam mu lu mel ni Espeliya ak Talitali loolee bis na tele woon juróom-ñeent fan ci weeru koor atum 212 euh, ci gàddaay gi moo ko 1er décembre 827 ci la jullit ni wàcc ci euh, tefesuk jaziratu Saqliya mu nekk benn île ñu daal di koy euh, nangu dugal fa lislaam juróom-ñeent fan ci weeru koor atum 479 ya moo ko 17 décembre 1086 ci la Yusufa ibnu Tashfin nekkoon généralu armée Mourabitini ci la gañe ñi nga xam ne ñoom ñooy al Afranji muy waa France ci njiital Founis Six ci benn xare bu ñuy wax Zulaqata ne Youssouf Tachfine am na seen kaw ndam lu mag Founis Six moom dafa mujj raw mook juróom-ñeent ci ay jege ñaaleem loole uh, bis na tey la woon di jaajëfal bu baax a baax nag ñi nga xam ne ñi ngi ñuy topp ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla di leen wax ngeen wéy di abonné ci seen chaîne YouTube bi ngir ngeen di mën a jot suñuy vidéo jërë ngeen jëf yéen ñi safoo bis na tey amuñu seen fay yàlla mi am seen fay yàlla na leen yàlla fay ñoo ngi leen di ñaanal koorug jàmm ak ndogug jàmm